سيد الحاجي مالك جنبو برينا لاي لاي سيد الحاجي مالك جنبو برينا لاي لاي سيد الحاجي مالك خم خم برينا لاي لاي سيد الحاجي مالك مالو قرينا لاي لاي سيد الحاجي مالك لود قرينا لاي لاي أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخوة الإيمان في كل مكان أقوكم في الله بيجا يسلمكم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله جناو بنيو مسلوة شيطان sant suñu borom julli ci suñu sang sayiduna muhammad ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ki ci kàddu gi di seen mbokkum daara mbay njaay fas yéene àndaat ak yéen ci suñu téere maam alhaji malik di fakihatu tulaab war a dikk ci suñu tomb ñetteel ñu ci wax bayanul asgar alladima li tariqa ñeel leeral eh, wirdi yi nga xam ni ñeel na képp ko aju ci tariqa bi yan wirda moom moo war ci yow yow mi aju ci tariqa bi incha allah lépp lu ci jub suñu boroom la lu ci dëng suñu mat matadi la ak suñu ñàkk xam lenn ci lii ñuy jéem wa billahi tawfiq له من الأوراد لازم وما ليس بلازم على من صوبما له نيلنا شيخ من الأوراد أي أوراد أي ذكر لازم يتقى كيغا خامني موم مو توغو طريقه بي وما اك يو خامني ليس بلازم نيكول يو war ci moom bu ko neexee def ko bu ko neexee bàyyi ala man ci ki nga xam ni suw wi ma toggeef na ko tariqa bi wala coobreewu na ci jël tariqa bi kon ñeel na ki nga xam ni jël na tariqa bi ay wérde yoo xam ni dafa war ci moom ak ay wérde yoo xam ni warul ci moom mooy tànn bu ko neexee def ko bu ko neexee bàyyi moo war a tàmbali ak yi nga xam ni nag moom moo war ci ki jël tariqa bi moom boo ko xasee jël rekk yii moom daf ko war def ko laata ngay jël tariqa bi waru la waaye boo ko xasee jël rekk comme farata la ci yow danga koy indi muy yi muy bëgg tudd واللازم الورد كذا الوظيفة وذكر عصر الجمعة النذيفة mu ni wallaazimu yi war ci ki jël tarixa bi al mooy mu def wird kon wird bi dafay ñeel ki jël tarixa bi mu koy amal comme niñ ko xamee wird suba ak ngoon kadal wazifa comme naka noonu war na ci moom muy def wazifa wazifa comme niñ ko xame wazifa suba bu ko neexee mu tànn suba wala ngoon gi bu ko neexee mu tànn ngoon wala muy def suba ak ngoon comme ni ko waa Cheel waa kër di defee wa zikru asril jumaa ak zikaru tàkkusaan ajjuma moom xadratul jumaa lañ ci jublu moom it dafa war ci ki jël tariq bi annadifa bi di aji sell annadifa bi di aji sell kon yi war ci ki jël tariqa bi moom moy ñett yooyu muy wérdu suba ak ngoon ak wazifa mooy tànn bu ko neexee jël suba bi rek bu ko neexee mu jël ngoon gi waaye bu jëlee suba ak ngoon gi moo dàq wala moo gën ndax noonu la waa kër Seydi di jëfandikoo ak xadaratul jumaa léegi nag mu war la wax lan mooy wird mu ni wal wirdu xul salaasatul miina tukfa ida lazamtahal mauna mu ni wal wirdu wirdu nag xul waxal salaasatul miina ñetti téeméer la ñetti téeméer mooy ñetti téeméer yi mooy ak téeméeri salaatu salaatul fatihi ak téeméeri la eh, ilaha illallah kon ñett yooyu mooy ñetti téeméer téeméer astaghfirullah téeméeri salaatul fatiha téeméeri la ilaha illallah mu ni kon loolu mooy wird tukfa mu ni boo ko defee tukfa dina la fegal iza lazamtaha soo taxoog wirdu woow almauna mbooleem cooney àdduna ak cooney àllaaxira ëllëg comme ni ko suñu sëriñ sëriñ Babacar si waxe lazim lawazimaha takfi li taalibiha min almanafia fi dunia wa uxraa kon wirda mu ngi noonu ñetti téeméer la kañ lañ koy tàmbali nag kañ la waxtoom moom wird dafa am waxtu muxtaar waxtu wuñ ko taamoo gën gën ci def ko ak waxtu daruri mooy waxtu woo xam ni boo amee ngant may nañ la nga def ko yeneen ya ci topp nag xadaa doon mooy fay wa waxtuhu alsabaaxu walmasaau walmuntaha aldawxu walisaau waxtu waxtu wérd asabaax mooy suba gi mooy buñ jullee suba rek ba pare foofu la foofu lañ koy defee bu dee wirdu suba wal masa bu dee wérdu ngoon tam buñ jullee tàkkusaan bu pare masa boobu dañ koy firee ba'da salaatul asri mooy buñ jullee tàkkusaan bu pare rek foofu lañ koy defee kon wirdu suba gi ginnaaw buñ jullee suba la wérdu ngoon gi ginnaaw buñ jullee tàkkusaan léegi nag mu wara ñëw ci fiñ ko daytale fi mu yem muxtaar wi kon xam nañu kañ lañ koy tàmbali léegi muxtaar wi daytal bi mu ngi yem ad dawxa wal muntaha daytalu wirdu suba ad dawxa mu ngi yem ci yoor yoor kon waxtu muxtaaru wirdu suba mu ngi yem ci yoor yoor fi ñu jullee suba ba kera yoor yoor foofu la muxtaar wi yem buñ demee ci wirdu ngoon ginnaaw bi jullee tàkkusaan wala incha ba ca geewe ga foofu la muxtaar wi yem ay lim su jublu muntahal muxtaar mooy daytalu muxtaar wi kon ñaari wirdi suba wu ngoon wi lim ci jublu bu suba bi muntahal muxtaar bi mu ngi yem ci addawxa mu yoor yoor jul wirdu takkusaan muntahal muxtaar bi mu ngi yem ci alinsa muy geewe léegi xam nañu kañ lañuy tàmbali wird bu dee bu suba bi bu dee bu ngoon bi ak seen muxtaar fi mu yem ay muntahal muxtaar léegi ñu dem ci daruri mooy bu muxtaar wi rawee daruri bi nag fan lay jeexe mu ni daruri fal laylu day dellu ci wirdu ngoon wi day dellu ci wirdu wirdu ngoon wi muy tàkkusaan feek ñuy dem ci fajar gu xar ci guddi gi yëpp day dellu ci daruur yi muy wirdu ngoon wi bu tàkkusaan wi kon fi mu la rawee rek bakera fajargi har guddigi yebci daruri cilabok wannahar daruri wirdu subagi day delu ci bëjëg bi yépp fi ñu mm, yor yor gi rawe bakera takusan gi dugg ci bëccëg bi yépp day dem ci daruri otamu ni wa daruri fallaylu mu dellu ci wirdu ngoon gi wannaharu mu dellu ci wirdu suba gi في التحرير تكسلا ثم الحضاء بعد ذلك مفترت إن لم يكن عذر كحيد ومرت من ثم الحضاء توب يوينك بجالة فاي موشي توب موي بلا مختار راوي ضروري براولة مملو دفترك فاي لنك تده من ثم ثم الحضاء توب فاي بعد ذا جناو لولو مفترت لن فرطال الله in lam yakun bu nekkul udrun ñeel ngant bu amoon ka xaydin comme jigéen gu gis mbërëk comme yi dikkal jigéen ñi wa marat wala feebar taxyiru di siqaami walmaxiidi jaa an ittijaani di tamxiidi mu ni nag tànnaloo taxyiru tànnaloog di siqaami aji feebar ji wal mahidi ak aji ki ame mbërëg ñu tànnaloo ko bu ko neexee wérd bu ko neexee mu bàyyi mu ni loola jaa dikk naa li tijaani ci tariixa seex zitam ji sitam xiit ki borom ak sell la kon ki nga xam ni dafa feebar wala mu eh, nekk jigéen ju am ngant mu ni tànnanoo tànnaloo nañ ka ci tarixa cheikh bu ko neexee mu def wérd bu ko neexee mu bàyyi zittam xiit kiy aji boromuk sellal wala yunaafi daaka nadbu zikri ala almaridi inda ahli dikri mu ni tànnaloo giñ ko tànnaloo nag mu aji ki am feebar wala ki nekk aji ngant ame ngant wala yunafi dàqanteewul ak daaka loolu ñu ko defloo muy tànnaloo ko nat bu dikri ñu bëgg ci moom muy def dikkar wala nat bu day dem ci manduub mooy lu ñu sopp ci moom zikar alal maridi ci aji feebar ji bu feebar ji nag dañuy sopp ci moom mu def asgaar yi inda ahli dikri ci fas ñooñ awraat wala ñooñu borom zikri tarixa yi kon dàqantewul ak tànnaloo giñ ko tànnaloo bu ko neexee mu def bu ko neexee mu bàyyi gën nañoo sopp nag mu def gën nañoo joyal ci sopp mu def moom aji feebar ji indi ahli dikri léegi ñu war a eh, jàng lan mooy baat yi ñi defee ورد ألفاظه استغفار التهليل ثم الصلاة مئات حليل ألفاظه بات وردي استغفار ما ينقدف أستغفر الله التهليل ما ينقدف لا إله إلا الله summa salatu top nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salatu boko def nak baxna baax salatu al fatiha bi lañ ci gëna a sopp mi atu ben bu si ne nag téeméer la xaliilu yow soppe bi bi ay sighatin wa amma al afdalu faqul salata fatihin had faddalu gis nga mu ni salaatul fatiha bale lay leeral mu ni ci bépp siixa bépp noo ko tëggee rek na nekk salaatu ala nabi rek baax na nga indi ko booy def wird ndax bu dee wazifa moom salaatul fatiha rek lañ ci indi waaye bu dee wird mu ni ci bépp ak noo ko tëggee te muy julli ci yonente bi rek baax na waaye nag lu baax day am lu ko gën a baax moo tax mu ni wa amal afdalu bi ñu gënal daal faxul waxal salaata fatihin mooy defe ko ci salaatul salaatul fatihin xat faddalu moom lañu gënale haadihi allati rattabaha rasulu salla alayhi rabbuna aljamilu mu ni haadihi nii ñu ko indee allati mooy bi nga xam ni rattabaha toftale na ko arrasulu suñu yonent ci cheikh noonu la ko joxe cheikh moom suñu yonent kon bu ñu tuddee yonent bi rek salla alayhi yàlla yàlla julli ci moom kon dañoo war a julli ci moom rabbuna suñ borom aljamil suñu borom bi ji aji rafet kon aljamil tur la ci suñu turu borom bi mu ni noonu la ko suñu yonente joxe seex muy werde wi wa kaana amiran biha talxiina li kulli muslimin atayiqiina wa kaana nekkoon na tam moom cheikh di ko digal biha ci noonu ñu ko joxe mooy wirdu woowu talxiina di ko sax li kulli muslimin ci bépp jullit boo xam ni ata dikke nekk yaqiina di am yaqiin ci mom ci bëgg dugg ci tariixam ci coobarewum kon képp ku musaan ñëw rek ci mom ak ki jokk ci mom ka jokk jokkaat ci mom non lañ ko daan joxe ba ci ñëpp ñuy joxe tariixa bi rek ci siira bi lañ koy joxe من بعد عرضه شروطنا التي في كتب المذهب حتى جلت ginnaaw bi nga xamante si ni nag gaaral nañu ki ñëw sarti tariqa bi min baadi ardihi ginnaaw bi ñu gaaralee aji ñëw ci pour bëgg dugg ci tarixa bi surutana lati suñu sart yi nga xam ne fii kutubil mazhabi mu ngi ci téere yi mazhab bi muy ngiiru mi muy tariqa cheikh hatta jallat yu ci fes kon téere tarixa bi yëpp buñ demee ca ca biir dañ fay gis ni surutu tarixa bi nekk na ca di ca fes mooy surut yi nga xam ni booy dugg moo la cay dugal ak ya ca biir ya ngay war a sàmmonte yooyu yëpp na ci kutubu kutubu tarixa yi laysa tadayunu subhatin yuctabar bal ittibaau masuyuuxu axbaru mi laysa nak nekkul tazayyunu di taaru di jaay ab taar subhatin ci kurus laxas ko ci loxo wala wekkoo ko ci baat mu ni nekkul ni mbir yi noonu la de yontabar mu ni nekkul ni noonu lañ koy jàppe ki nekk ci tariqa bi duñ ko considéré ci muy jaay ak taaru ci kurus gu muy laxasoo wala gu muy wekkoo ba li fi nekk kay ittibaacu masuyuux mooy topp li nga xam ni moom la sëriñ ya nekke woon axbaru moom lañu xabaar ni noona lañ koy jàppe kon ki nekk ci tarixa bi du kurus rekk mom lay réyal ñu jàpp ka ni waa jaa ngi noonu waaye ak toppam ci li sëriñ yi ak kilifa yi santaane loola rek lañ koy jàppe taalibe wa zahiru alxaasidi la yuctabar inda alwali walbatinu almuctabar wa zahiru li fes li feeñ alxaasidi ci taalibe bi ki jublu ki jublu tariqa bi la yu'tabaru loola kenn du ko considéré kenn du ko ko jàppe li muy fesal rek ci kaw moom duñ ko ko jàppe ni ab taalibe la indal wali ci fas wali waaye nag wal baatinu li mu nëbb te gëm ko al mu'tabar loola la ñuy considéré moom la ñu jàpp kon fesal ci kaw ak taalibe nëb ci biir leneen mu ni la nga fesal du loola la ñuy jàpp waaye langa nga nëbb bu dee lu baax dig taalibe piir loola rekk lañuy ñuy considéré moo tax mu bëgg laa indil mm, xaaji ñi nga xam ni ñooñu ñooy taalibe yi walxaasiduuna naxwahu axsaamun arbaatun yubiinuha alxasaamu معتقد في ظاهر وباطن أصعد عاسد الولي الفاطن وضده أبعدهم ومعتقد في ظاهر وسر منه منتقد أضر من حسد للولي وعكسه ذو حسد جلي والخاصبون نجبلو موي طالبي نجبلو طريقة بي نحوه جبلو طريقة بي أخصام أربعة نينتي خاج لنو يبينها الخصام دينا لير نينتي خاج يوي لير الكدب موي سيد لا كون بي نينتي خاج يوي بانك بان لا موني معتقد في ظاهرين mu ni kii fësal ak taalibeem ci biti wa baatinin ak ci biiram mooy ki nekk taalibe piir ci biti ak ci biir mu ni kooku nag asaadu xaasidil wali alfaatini kooku nag mooy waaja moo gën a texe ci ñu jublu ci wali di borom xel kon ki fas ci xolom feeñal ci biteem ak taalibe piir kooku moom mooy waaja wa diddu sofaan ba nag sofaan bi nag buñ ko waxee mooy ki fesalul ci biteem fasul ci biiram ak taalibe abaaduhum kooka moom moo gën a sori ab taalibe moo tax moo wa didduhu abaaduhum wa muntaqidun fi zahirin wa siru minhu muntaqid wa didduhu sofanam afaduhum moyki sori moyki gëna sori abtaali be kon mooy ñaareelu façon bi ñetteel bi wa mono wa mutaqid fi zahiri wa siru minhu muntaqid ñetteelu façon bi façon taalibe bi mooy ki fésal ci biteem ak taalibe waaye biiram mu mm, bañ nekk ak taalibe mo biteem daal boo ko gisee di nga ni ab tijaan la waaye biiram deful lenn ni tijaan du wird du zikar du xadara mu ni kooku adarru man lil wali mu ni kooku moo lor ci ki jublu wali bi moo tax mu ne wa façon bi mooy ki fas ci xolam wa muctaqidu wa fi zahiri ki fas ci ni ab taalibe la wa sirru ca te ci biiram minhu moom muntaqid kuy kuy dàggasante la wala kuy naqdu lay la muntaqid mooy kuy naqdu kuy bañ koo xam ni luñ ko indi rek mu bañ loola indi leneen mu ni kooku nag a adaru moo gën a lor ci ñi jublu wali bi ku mujjeel ki nag wa aksuhu mooy safaanab kii mu mujjee wax di ñetteel bi mooy ki fesal ci biteem ni du dara waaye biiram mooy ab taalibe ɗum dal nena nekkol ab tidiane waya bo wiyete def jefi tidiane ɗi wirde ɗi zicar ɗi hadara moo tax mo ni wa axuhu sofanu kuñatel ki moy ki fesal ci biti ni du tidiane waye biram muy jëf jëfi tidiane mu ni zo hasadin jali mu ni kooku nag ku iñaan la rek mënoon naa wax benn rek li mu doon waaye mën naa am bañ ab cër bu ko raw wala ñu xamee ko fi féete waaye lépp fi lépp mu nëbb ko mu ni kooku daal mooy zu xasadin jali rek la waaye man naa fesal rek li mu doon kon ñeenti façon ñu jublu ñu ngi noonu kon ñeenti façon taalibe yi ñu ngi noonu ku njëkk ki di muctaqidun fi zahirin wa batin ki fas ci xolam fesal ci biteem ak taalibeem mu ni kooku nag mooy waaja ñaareel bi wa didduhu sofaanam mooy ki fasul ci xolam ab taalibe fesalul ci ay jëfam ab taalibe mu ni kooku nag moo gën a sori ku naan ab taalibe la ñetteel ba wa muctaqidun fi zahirin mooy ki fas cibbitem ni ab taalibe la te biiram jëful yëfi taalibe mu ni kooko nag aji lor la wa aksuhu sofaanab kii nag mooy ki fesal cibbitem ni du dara waaye biiram mu cay jëf jëfi taalibe mu ni zo hasadin mu ni kooko aji ku iñaan la kon ñu daaleen daaneele ni kàddu gi foofu ci kàddu gi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 سيد الحادي مالك خم خم برينا سيد الحادي مالك ما نقرينا ليلى سيد الحادي مالك لو قرينا